ñu ngi lay nuyu bu baax Mbàkke te di la di nuyu sëriñ Abdou Kewe Jenn ibnu Cheikh Mouhamad Lamine Baara Jenn mi nga xam ne tey jii mooy kilifa jotaay bi ndax bu toogee fii rek sama wet rek moom kon day mel ni sama waajur suñu soxee bu toog na fi te toog na fi ab jotaayam ndax depuis huit ba léegi mi ngi fi toog kon sëriñ bi sant nañ la bu baax tey jéggalu bu baax ci jotaay bu yàgg bi ci mag ñu ngi koy jéggalu bu baax waaye da nga wan ni rek la maanaam comme sa waajur moo fi waroon a teew te mënu fee teew kon man mi nga xam ne maay rakkam maa ko fi teewal jërëjëf sëriñ bi sant nañ la bu baax di nuyu sëriñ Aïdara Mbàkke ibnu sëriñ daam faati Mbacke moom tamit eh, mi nga xam ne mi ngi si jotaay bi ak sëñ xaati Mbacke sëñ Abbas ñoom xam mooy délégation bi nga xam ni ànd nañoo ak sëriñ Bassirou Mbacke jugee ci sëriñ Abbas ñu ngi leen di gën a fedd lig nuyoo rek ak ngërëm ak cant ci jotaay bu rafet bi wax dëgg yàlla lii moom mm, maanaam rëy na lool si ñun waaw waaye da ngeen ñëwaan rek ni leen ñu bis bi ñoo yéen ñoo si bokk yam ni ngeen ko wootee noonu lañ ko waroon a wootee. kon dafa mel ni rek ñun ñëy seeni doom di ñoo yabar rek ngir ñu defar leen lii ci diggante bi nga xam ni amoon na muy diggante maam Thierno Birahim ak maam Cheikh Issa Diène kon Mbacke sant nañ ci bu baax tey jéggalu nag ci jotaay bu yàgg bi jërëjëf Mbacke euh, di nuyu sëriñ Abdoulahat moom te moom si Cheikh Dieye teew na fi ak mboolem kilifa yi nga xam ni teew nañ fi ñu ngi leen nuyu baax di leen sant euh, tey am na ngërëm di ko beral sëriñ Sidi Jenn mi nga xam ni moom mooy taawu sëriñ Soxi bu Jenn ànd ak ay rakkam yëpp sëriñ Naar Jenn sëriñ Daam ak mboolem njabootuk sëriñ Soxi bu Jenn gépp nga xam ni ñoom tamit euh, bopp ba léegi ñu ngi ci liggéey bi fu ñu toll ñi ngi déggante ñi ngi waxtaan ak bépp xel bu rafet ak xalaat ñu di ko jël di ñu ko dénk pour lu gën a jubanti bis bi kon sëriñ Sidi ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di jël nuyoo bi teg ko ci loxo nga yeggaleel ñu ko mbooleem njabootuk sëriñ soñ bu jenn gépp jërëjëf jenn gépp bàyyiwuñu kenn ak mbooleem seexi maam seexi isaa jenn yi nga xam ni ñoom tamit ñëpp ñëw nañ teew ci bis bi ndax kër gu ci nekk rek ndaw jóge na fa ñëw teewe bis bi ndax bis bi tamit seen bis la te it eh, noonu lañ ko fonke noonu lañ ko jàppee kon ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di nuyu sëriñ Massamba Mbay Mbegere moom tamit eh, mi ngi si jotaay bi te it wax dëgg yàlla ku fonk kër gi ku am yëg-yëg ci kër gi waaye ku am yéene ci kër gi ndax ku ne dégg na fi bis bi nga xam ni moom la fi daraja laa woon maam Cheikh Issa Diène nga xam ni liggéey bu rafet bu am solo def na ko fa kon sëriñ Massamba ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm di nuyu soxna Bali Mbakke moom sëriñ As Gede moom tamit euh, moom sax démb la ñëw ba léegi mi ngi fi ànd ak ñun bis bi soxna Bali ñi ngi lay sant bu baax te te di la gërëm di sant rek. comme maanaam kilifa yi nga xam ni teew nañ fi ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ak euh, euh, ndaw li nga xam ne moom la fi suñu si dinaar yabar muy sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Salihu doomam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen yóbbante ak cant ci sëriñ bi. Euh, di nuyu suñu kilifa yi nga xam ni tamit teew nañ fi ci sëñ Cheikh Jonn di magu Mohamed Jonn premier ministre. mu ànd ak délégation bu mag ànd ak euh, président Seyid Fall maire Ndiène Lagane ak euh, sëriñ Assane Mbaye ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm kon Cheikh ñu ngi lay yóbbante nuyoo ak cant ci premier ministre ndax ni ko suñ soñ bu waxee rek doy na sëkk ndax ku ne xam na digganteem ak sëriñ bi ni ko suñu soñ bu waxee du toog ñetti semaine te diggantewut ak sëriñ bi baa mu gisante sëriñ bi kon loolu ab diggante la ñi ngi koy sant bu baax ci taxawaayam ak jàppam ci bis bi euh, donte jóge nañ ci liggéey boo xam bi mu jàllee yàggul waaye lu mu xat-xat-xat rek teewut wax dëgg yàlla euh, maam taxaw na ci ak euh, président Seyid Fall ak ànd ak sëñ Assane Mbaye moomu ñu def ci ay liggéey yu yu am solo yoo xam si jàpp jàppale nañ ci liggéey bu baax a baax neen ñu ko santal bu baax te gërëmal ñu ko te liggéey bi yëpp yegg nañ ko sëñ bi ndax fépp fu ñu ci toll rek ñu ngi ci rendre compte sëñ bi di ci waxtaan ak moom ndax euh, sa kilifa bu la tegee ci barab di la liggéeyloo war ngaa fexe ba fépp rek foo ci toll si liggéey bi di si ànd ak moom di ci ak moom ba dara da ko ci ump kon euh, sànq rek mi ngi may woo euh, maa ngi koy yeggale yéene yeeg njàppandal géeg yëpp kon jërëjëf nga ma santal ñu ko baax a baax Cheikh ñu ngi nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne tamit dañ jàppale ci bis bi ndax xam ngeen ni bis bi moom ku xool nii rek macha allah xam ni du liggéey bu yomb waaye lépp rek lu taxaw lu ne ci kër gi lan cey jiite rek mooy taalibe yi taxaw nañ ci taxawaay bu rafet taxaw nañ ci taxaw ba war moo xam ci wàllu finance la moo xam ci wàllu xalaat la ak bépp fànn rek ba bis bi mën a mel nii rek taxawaayu taalibe yi la kon ñu ngi leen di sant seen jëf moom yaatu na ci lool rëy na ci lool donte sax too leen mën a lim waaye eh, lépp loo gis rek am na lu ko waral bu ko defee dañ ciy tudd ay tur rek yoo xam ne si eh, dañuy yóbbaale mboolem taaliba yëpp rawatina mboolem daayira yëpp eh, président Mor Aaj directeur général assurance ñu koy sant bu baax moom it xam naa ci ginnaaw la génn ak monsieur Alassane commerçant ba Euh, waagaan seen Touba Belal groupe euh, di taalibe euh, sëriñ Abdou Lahat ñu ngi koy ziar bu baax moom it sëriñ Abdou Diagne DG Transvi ñu ngi koy sant bu baax moom it fi la yendu nga xam ni xéewal gi ngeen seen ci kaw lu jëm ci ndox meek yu baree bari ñëw andi fi ay médecin yëpp ndax nee na ñaari année yi jàll yëpp maa ngi fay ñëw gis fa ay jël yoo xam si yéem na ma bépp événement bu ma mës a dem bu mel nii musuma koo gis te daw na sama yaram kon faw ma jël ay motokaay yóbbu ko fa ndax képp koo xam si am na ci lu ci loru waaye laa képp koo xam si am na lu tàng ci yaram ñu mën koo wisit mën koo joxe garab ñoom it fi la yendu ak euh, médecin yi mu àndoon yëpp indi ambulance wax dëgg yàlla loolu liggéey bu rafet la kon sëñ soñ bu rek bu fee ñu seereel la ko nga mën ñu koo yeggalee sëñ bi ndax it euh, liggéey bu rafet la sëriñ Fallou Ndiaye moom tamit ñu ngi koy sant bu baax waa ko sëriñ Fallou Almignon ndax moom tamit ci kër gi la ndax sët la ci kër gi ndax doomu soxna mbenn jeen la moom sëñ baara moom ndeysaan takk ndiggam nekk ci liggéey bi mbirum ndox yeeg yëpp mi ngi si di def ay liggéey yu am solo kon sëñ Fallou ñu ngi lay ziar di ziar euh, maire jaxaay moom it xam naa man naam dafa mujjul yegg si waaye wax dëgg yàlla moom tamit yónnee na fi ay xéwal yu baree bari ci awale soxna Kiné Ndiir mi nga xam ni moom moo jiite organisation ci soxna yi euh, euh, mu yegg si fi kon soxna Kiné nga joxal ñu ko nuyoo bi de santal ñu ko bu baax a baax ah, di nuyu nag ñi nga xam ni tey ñoo waral lii lépp mu waa Jamia Tawdiha wa Nasri Injazat Cheikh Issa Diène euh, ci taxawaay bu rafet bi ak coona bi ak ni mu yàggee lu mat ñaari weer ngeen nekk ci waajtaay bàyyi seen liggéey lépp nekk ngir bis bi jaar yoon ngir liggéey bi rafet ngir ñu mën see jariñu ngir taalibe yi mën see jariñu waaye ngir def liggéey boo xam si danañ ko mën a denc ba sunuy sëti sët si jariñu ci diggante gaa yu baax yi nga xam ni ñoo fi nekkoon topp ci ginnaaw sëriñ bu tedd bi muy Xaadimu Rasuul di def ay liggéey kon jamia bi sant nañ leen sant bu baax ci communité organisation bi sëñ Balla Diouf ak euh, ñi mi àndal ñëpp ci comité communication sëriñ Moussa jenn di rakk suñu Souhaïbou sëñ Mbacke Souran sëñ Ibrahima Bey ak euh, ñi àndal ñëpp ci comité accueil bi sëriñ Ibrahima Dieng Gora ak euh, ñi mu àndal ñëpp ci wàllu lépp lu jëm ci xéwal yi ci waañ wi sëñ Abdou Lahad Dieng ak soxna Mousli Dieng bu ci liggéey yu rafet yi xéwal yëpp macha allah. mbokki taalibe yi ñëpp sant nañ ci am nañ ci mbégte bu baax a baax ak euh, ñi yore protocole bi ak mboolem daayira yi nga xam ni ñu aju ci kër gi waaye dañ cee jiitale tey siru ansir bi nga xam ni mooy daayira bu mag bi féete ndakaaru te nekk ci gox yi xam naa du neex a lim bu ko defee ñoom dañuy yóbbaale yi nga xam ni ñoo jógee ba daayira Italie bi délégation yi nga xam ne ñoo jógee Njenne Lagan yi nga xam ne ñoo jógee Ndànn yi nga xam ne moo jógee Mbar yi jógee Touba ci njiitul Serigne Sarr Baye Serigne Sarr bàyyiwul kenn sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax wax dëgg yàlla macha allah liggéey bi rafet na lool. di nuyu di sant sëriñ Makhtar jenn moom tamit di waajur ci man waaye tamit di def liggéey bu rafet ci bis bi ndax yàlla def na. Euh, euh, biñ ci waxtaanee lim njëkk a wax mooy liggéey bu mel ni la say jiitu mooy toppatoo barab ba ba noppi soo ko toppatoo leneen daal di jël ay responsabilité ci barab bi kon jenn sant nañ la bu baax di la yóbbante tamit suñu nuyoo ak euh, zone GR ci ci ci ci ci ci ci président kon sëriñ Maxtaar ñu ngi lay GR bu baax bàyyiwuñu kenn kon xam naa nee nañ waxtu wi jot na. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar du soxna yi wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na lool waaye damay jël nuyoo bi lépp rek teg ko ci loxo soxna Waly Bousso bu ko defee mu mottali rek yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. kon day mel nii waxtu wi daal dinay jot ni ko Serigne Seex waxee ñu fàttaliwaat ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk ci mbooloo mi sëñ Ibrahima mi ngi sàkku ci ñëpp nañ toog ba mardi. man nag xam naa sëñ Ibrahima danga may bàyyi ma bi rek ndax liggéey ba may xaar dafa xaw a bari bu ko defee yéen ñi ci des moom mën ngeen a toog ba xam naa ni suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk yor wàllu sécurité tamit wax dëgg ñu ngi leen sant bu baax a baax gendarmerie ak waa suñu mbokk taalib yi nga xam ne ñoom tamit kenn demool ñu des sonn nañu lool ci sécurité bi sant nañu leen gërëm leen sëñ Lamine jenn mu sëñ Abdou Salaam ñu fàttali ni am na benn taalif bu mu def ci Cheikh Issa tudde ko jaar jaari maam Cheikh Issa Dieng ku ci bëgg rek mën nga jokkook sëñ Ablaye Ndiaye Baye Fallou Njenne kon day mel ni xam naa ni dañuy sàkku ci kilifa yi rek ku ñu ci mën a defal ñaan bu ko defee ñu tàllal sang si si Mamadou Basir wala Serigne Souhaïbou amin amin sécurité nañ bàyyi xel kilifa yi fi ñu war a jaar jërë ngeen jëf baax na